li bu wóor mooy ne taxawu am na parrainage euh, élus locaux am euh, parrainage euh, parlementaire kii Pastef am na mën na am ñaar ñëpp je je pense nu tudd wàllu même chose benn bokk yaakaar moom xam naa dina dina def forme de parrainage yëpp yéen vous êtes obligé de vous rabattre sur le parrainage citoyen Euh, est-ce que conclusion yi ñu jël ci dialogue bi est-ce qu'elles sont rassurantes concernant le parrainage citoyen non euh, parrainage bi amul équité ni ñu ko doxalee ñoom ni ñu ko séddale soo xoolee mooy ñi nga xamante ni am nañ par euh, am nañ ay ay parlement ñoom arrangé na leen soo xoolee les élus Pastef sax amu ko parce que élus Yewwi yi rek matuñu cent vingt waaw waaw élus Yewwi yi sax matuñu cent vingt yaa le pouvoir moo ko am mais loolu lépp amul solo ñun xam nga lu am solo condition yi nga xamante ni dañ ko war a remplir ngir bokk ñun ñoo ngi ciy liggéey ngir bokk ci élection yi loolu rek moo am solo du ma nekk fii di jooy ci affaire parrainage bu doonte un pour cent ñu ngi liggéey ci teg mécanisme boo xamante ne dinañu mën a permettre ñu remplir mécanisme yooyu pour mën a bokk ci élection yi. alors boo demul deuxième tour. sa soutien ci kan lay dem mën nga soutenir un le candidat de Benno wala yow sa soutien dafay dem exclusivement ci candidat wu opposition quel qu'il soit. nekkaguñu ci deuxième tour. Maïmouna mais mais mais c'est juste une projection. waay nekkuñu ci. deuxième mais c'est juste une projection oh, mbir la boo xam ne mën nga ko ci deuxième tour. li am solo ba am mooy position FDS mooy ñoon xeex ñu sax ngir alternance alternative la ñuy xeex. bëri nañoo invité ci sa télé yi ma leen di gis ay candidats lañ mais soo xoolee en vérité programme yi ñu am projet yi ñu am ñoo projet Macky Sall yi sore sorewuñu mais ñun alternative la ñuy xeex nan la ñuy fexee ba Sénégal may mun a mbubb bi mu sol depuis 1960 mu summi ko sol beneen mbubb mu bees. ban mbubb. mbubb sol bu bees. état néocolonial bi mu solo nga xamante ni ci violence lay dox ci prédation lay dox. ci corruption lay dox ñu mën a taxawal beneen état bu bees état boo xamante ni li ñu tudde souveraineté mooy ñu yilifaat suñu bopp yilif suñuy xalaat yilif suñuy gént yilif suñu alal suñu économie may mun a ñu yilif suñu koom-koom may mun a yilif suñu gaz suñu zircon yilif suñu géej yilif suñu suuf ñu yilif suñu mone ñu yilif suñu sécurité may mun a ñi yilif suñu koom mooy souveraineté boobu nan lañ ko mën a taxawaat ba Sénégal nekkaat un état souverain ñun am souveraineté alimentaire boo xamante ni ñun ñu mën a dundal suñu bopp ñi am souverainété sanitaire boo xamante ni dinañ mën a faj suñu suñu suñu waa dëkk ñun souveraineté boobu ci la ñuy liggéey ñu décliner ko ci suñu projet politique boo xamante ne mooy moo bi ëpp doole parce que dañoo jàpp ni jot na suñu réew yi di tubaab di wax seconde émancipation segond indépendance mu nekk indépendance bu réel indépendance politique indépendance économique indépendance sanitaire yooyu boppam souveraineté